mu ne ko arini kariman maata min qabli xiinihi fa yurdi fuaadi aw baxiilan muxallada wan ma koo xam ne tabe moo tax mu dee te diggam jotut bu baa sama xol bi dina wóyi ci li mayoo aw baxiilan muxallada wala koo xam ne nayam moo tax nayam moo tax mu des ci àdduna fii nii kon mi ngi noonu des fois daraan togg indil ko togg benn nit mu ne ko ba may toggalati na nga togg loo xam ne pour nga suraale ñeneen إذا ما صنعت الزاد فلتميسي له أكولا فإني لست آكله وحدي من دوما لك من كسي كون مي نونو دانوات ني موتام أما والذي لا يعلم الغيب خيره ويحيي العصام البيد وهي رميم ما وقت يال مي خامني كان خامل لو نب كودول موم مي دندل يخي فناخي وهي رميم لقد بت أتوي البتنة وزاد يستهي maxaafata yawmin an yuqaala laimu yàgg naa takk sama biir fanaanoo noonu te booba maa ngi yor lu ma lekk mais damay bañ nit ñëw fëgg du ma am lu ma ko jox maxaafata yawmin an yuqaala laimu kon xanaa kii moo tabe roy waaye ngi nii di leen jox dëgg dëgg beneen yoon incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah